ci wàllum pouvoir parce que booy seetlu ay coalition ci pouvoir yàgg na am mais en général bu ñu defee un an deux ans coalition pouvoir boobu dafay tas parti bi nga xamante ne moom mooy gagné en général ñoom ñooy mujj di gérer euh, pouvoir bi génnee ñi nga xamante ne ñoo nekkoon alliés yi loolu la ñu gis en 2000 tey depuis 2012 ñu ngi 2021 daanaka 9 ans coalition Benno Bokk Yaakaar amul daanaka benn parti bu ci génn parti yépp ñu ngi ànd tey ak le président Macky Sall tey la coalition bi gën a dëgër. sinon am na ñu yokk. gën a dëgër ci wàllu assemblée nationale parce que foofu la parti yépp daanaka di daje coalition bi. di gën di yaatu ci biir assemblée nationale mais également ci mouvance présidentielle bi en général coalition boobu consolidé wu après l'élection présidentielle de 2019 bi nga xamante ne président Macky def ko gagné à plus de 58 pour cent mhm. donc une large majorité mais loolu dayul dañu génn juste élection présidentielle bi ñu gis 15 mois après ralliement principal opposant ci biir Sénégal bi représenté 20 pour cent électorat bi rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakaar donc arithmétiquement comme ni ko Babacar waxee sànq la coalition a à peu près 80 pour cent ci wàllum électorat donc loolu daanaka muy goulet ci Sénégal muy gulet ci coalition bi nga xamante ne mooy gérer réew mi pendant plus de neuf ans loolu muy wane ne que le président Macky Sall dafa am vraiment yaatuwaay place bi ko Sénégalais yi jox wane na ko mat na ko sëkk parce que Sénégal boo ko jiite tey bu nu la nekkatoo njiit rek pour sa parti wala sa coalition da nga war a waxtaan ak Sénégalais yépp boor bu ñu mënti nekk rawatina ñu nekk ci biir opposition am ay projet politique comme yow donc ñooñu boo mënee waxtaan ñoom ba tey yow mi nga xamante ne yow la yàlla jiital ak peuple sénégalais bi ñu mën a ànd ak yow je pense que président Macky Sall moo ngi dans son rôle vraiment d'ouverture de gardien de notre constitution mais également de gestion de la nation dans cette dans toutes ses composantes. Mm-hmm. parce que loolu moom mooy njiitu réew donc tey coalition bi mu ngi dox mu ngi gën di yaatu tey ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk affaire sunu xel mënul lu dul dal ci président Macky Sall ci nu muy yore réew mi parce que xel yooyu yëpp di daje di xalaat pour la nation pour le Sénégal mënul jur lu dul njëriñ pour réew mi mënul jur lu dul permettre développement bi ñu bëgg président Macky Sall fixer l' émergence du Sénégal 2035 ñu mun ci jublu ci lu mu gën a gaawee. ci lu mu gën a gaawee waaw mais le grand perdant est ce que c' est pas le parti démocratique sénégalais Lamine Ba nuyu naa la. <laughs> merci <laughs> parce que boobu déggee question bi parce que boo ko xoolee ñi ñi fekki le pouvoir wala Benno Bokk Yaakaar yëpp ci PDS la jógee daanaka 80 pour cent yi mooy par exemple. coalition ñoom Omar Sarr bu réew mi du nu ni fa la jóge waaye daanaka ci la ci ci famille bii la bokk mais ñooñu famille libérale bi mooy gën di wàññeeku famille libérale bi laay Wade ëmb ñoom Karim ak wala Karim mooy gën di wàññi te bu gën di wàññeeku mag euh, benn bokk yaakaar moo ci avantage wu est-ce que loolu du seen ngaañ-ngaañ. merci nga baal ma ma nuyu d'abord ñi ma fekk ci plateau bi remercier leen pour seen invitation. Euh, di wax ni man euh, dama am beneen lecture. Mhm. parce que bu ñuy jàngat mbir fa am ci ay baromètres yi ñu ko mën a teg. parti politique li mu doon ak dayoom élection moo ko mën a xayma élection yu jaar yoon ñu ñëpp nangu euh, mooy élection yoo xam ne nii bu ñu xëyee wootee kaas du toj pëne du takk ki gagné su paree ñi mu gagné tàcc ko ne ko félicitation parce que loolu mooy ambition démocratique te Sénégal amoon na loolu. comme euh, élection yi passé maa ngi ñëw <laughs> nga comprendre da nga ma laaj <laughs> donc pour man loolu mooy mbir mi ñaareel bi mooy dama am problème ak coalition. Mhm. Sénégal tey boo waxee coalition da ngay wax lu leen boole ci lu ñu ànd programme. wala doctrine politique wala séddoo réew mi et je pense que li ñu gis ci nguuru président Macky Sall ci coalition euh, daanaka loolu lay niru ndax boo xoolee institution de la république réew mi yëpp séddale la ak ñi mu àndal ku mu àndalul bokkuloo ci muy au conseil des collectivité territoriales muy conseil économique sociale muy lu mu ci mën ci doon rek du société civile du presse du opposition loolu problème la euh, problème bi ma gën a am ci coalition yi mooy da nga tudd sànq nga ni tey bu ñu xaymaa li nguuru président Macky Sall am war na mat quatre-vingt pour cent ñu teg ko ci ne am na ku nekkoon ci kujjee gi jógee foofu day représenter vingt pour cent ma fàttali ne élection yi am Sénégal 2019 dafa nekk ay élections yu particulières c'est-à-dire élection yu nga xam ne nii d'abord les deux premières partis historiques du Sénégal demuñu élection parti socialiste parti démocratique sénégalais élection bi nekk ci contexte de contestation ba tey nii sax bu ñu yeewoo dañoom firnde ci parenage parce que cour de la CEDEAO dafa déclarer ne dafa violer les droits et libertés te loolu waxoon nañu ko kaas ko mais dégguñu pouvoir bi organiser ay élection ci ay conditions yu mu yu mu ko buggee donc tey bu ñu mënee toog du ñu am lu substantiel pour mën a apprécier qui est quoi qui pèse quoi dans ce pays moo tax il est important ñu xam ne suñu faiblesse démocratique la ba ñu yor réew mi jël seen responsabilité delloo Sénégal fi mu nekkoon c'est-à-dire des élections inclusives démocratiques apaisées et libres transparentes loolu lañ ci war a mën a jàngat euh, PDS nag ñu ngi sant yàlla <laughs> ndax euh, donte ne ñoo yoroon réew mi ñàkk ko joxe ko ci anam yu rafet it niñ ko jëlee to ñu tuumaal ñu jàpp ñu di def coono bu ne ñu daj ko jàpp suñu candidat tëj ci foofu lay ñëwee ñun ñàkkuñu woon candidat 2019 dañu amoon candidat donte ne nag bëgguñu woon changer candidat parce que dañu wóoroon suñu candidat tànn ko ci anam yi gën a rafet ñu parti politique tànneewul candidat mu nekk nag pour la première fois dans l'histoire politique du PDS ñu dem élection ne ku bëgg a nekk candidat pour porter le maillot du parti devant la presse ñëpp ñëw toog ñu amoon ay candidats juróom-ñaar Karim bokkoon ci ma fàttali ne ñi nga tudd tey ñi dem ñoo sampoo ndënd Karim Wade nekk ay baron du parti democratique sénégalais imposé ñu ko Abdoulaye ne non duñ ko tànn dañuy woote donc tey ñooñu ñoo dem donc ñun ci la ñu newoon gëm ko di ci dox ci loolu la ñu nekk ba tey nii dara changé wul ñàkk nañu réew mi teg nañu ay coono ñu ngi koy dund ci dignité ci bëgg réew mi ndax ci lu mu woote rek dinañu wuyu ak nañ ko mënee ak nañu tolloo li ci des nag mooy suñu parti comme parti yëpp tey daf ñu interpeller l'actualité nous interpelle l'avenir aussi nous interpelle ba tax na ñu ngi defaraat suñu ngemb ci suñu ndigalu secretaire général national Ablaye Wade euh, di wër réew mi pour dem waxtaan ak suñu militant gën a defaraat suñu parti ndax bala ngay dem sax ci coalition dafa baax yow nga taxaw nga am représentativité mm-hmm. te ñun dañu nekk parti historique am électorat boo xam ne nii mun nañ d'accord ne ñu rek ci réew mi ñoo am électorat bu constant depuis les vingt cinq dernière années mooy électorat bu dul jéggi entre vingt cinq et trente trois pour cent. mais est que fi fi toll nii par rapport ak yi événement yi jàll laa. waaw mooy li ma la wax xam nga élection rek a mën a xayma xayma dayo parti li am solo mooy élection yi passé deux mille dix neuf bi ñuy indee parrainage ñun deful woon problème ci ñun pour wane suñu dayo bu ñu laajtee nombre signature dañu dajale lu ëpp loolu million et quelque dem joxe wane ne ñun am nañu dayo bi bu ñu bàyyi woon nag ak suñu candidat ñu dem élection je pense que réew mi dinañ xam dayo PDS du lu ñuy nekk di spéculer dinañ xam ne ñun suñu représentativité du lu ñuy wax mhm. te du lu ñuy aussi négocier parce que dañu bokk ne élection yi loolu rek moo ñu mën a may ñu xam dayo bi moo tax ba ñu élection yi gisee ne jaarul yoon nañ koy doxalee du noonu xañ ñu candidat bëgg ñu changer candidat pour mu légitimer benn élection ñu ne déedéet suñu élection dañ ko suñu candidat samp nañu ko duñu ko changer donte ne nag gis nga li ci topp. Hmm. gymnastique bi ñu def ba génne ko ci liste électorale yi xañ ñu candidat mais ñun amoon nañu candidat. donc daal loolu laa la mun a wax ci gàttal. waaw euh, coalition yi. waaw problème la. problème la li ñu amoon solo pour l'instant mooy suñu parti taxawaayam ak ëllëg même bu ñuy duggaat sax ci coalition yi comme ni nga koy waxee. mu nekk coalition yu nga xam ne nii dinañ fexe ba ñi ñu koy bokkal ñu bokk gis-gis ci réew mi. waaw bokk programme buñ bokk lit programme sax. bañ a séddoo bokk bañ a nekk programme ànd séddoo. ànd séddoo ànd séddoo ah, li dal parti démocratique Sénégal mën nañ ko